ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen tafsirul quran bi ñuy amal fii ci la maison du coran mbokk yi tey dañuy ñëw ak yéen ci beneen saar saar woo xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala dafee wax yu yéeme yoo xamante ne ni dafa war ci ab jullit mu taxaw ci bàyyi ci xel saar yu ñuy ñëw ak moom mooy suuratu shura saar wi yàlla tudde diisoo toog waxtaan kër yi famille yi bi fépp foo xamante ne nii dañoo am mbooloo rek ba ci ñaar ñi dencante sax yàlla subhaanahu wa taala ni dee leen diisoo di waxtaan ba yàlla jël ko tudde ko aw saar muy suratu shura saar woowu lañ ñëw ak yéen saar woowu ca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 وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون بقي yàlla subhaanahu wa taala nee na fa ma utiitum min cheyin fa mataaul xayaati dunia wa ma inda allahi xayrun wa abqa lilladina aamanu wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla subhaanahu wa taala nee na ak lu ngeen mën a am ci àdduna ak lu mu bari bari bari alal yi doom yi soxna yi kër yi ak lu ngeen fi mënti am loolu poñoxeti àdduna rek la waaye yàlla subhaanahu wa taala nee na li ma leen dencal yowmal qiyaam xayrun wa abqa li ma leen dencal yowmal qiyaam moo gën te mooy lii sax mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ci saar wi dafa teggi dara dani lépp lu ngeen mën a am ci àdduna poñu xeeti àdduna la waaye li ma leen dencal yowmal qiyaam moo gën ba pare dafay sax du jeex nga dégg ci ñaari mbir kon mooy ndekete àdduna loo fi mënti am ak lu mu neex-neex ak lu mu baax baax yàlla subhaanahu wa taala dencal na la yowmal qiyaam lu gën a neex ak lu gën a baax ñaareel bi àdduna loo fi mënti am day jeex bis dina ñëw mu dem bala mbaa yow nga dem ba fi te yowmal qiyaam lala yàlla subhaanahu wa taala di faye dootul jeex moo tax yàlla daan ne xayrun wa abqa waaye nag nee na lilladina amanu maa ko dencal gaa yi gëm maa ngi ko dencal ñan gaa yi gëm wa ala rabbihim yatawakkaluun ak gaa yi nga xamante ne ni dañoo wàkkirlu ci seen boroom dañoo jël seen mbir yépp jox ko yàlla mu mel ni dañoo laaj yàlla subhanahu wa taala est-ce que am na yeneen critère est-ce que am na yeneen jikko yoo xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala dencal na ko ay gaay yàlla daan ni waaw waaw walladina yajtanibuuna kabaira al ithmi wal fawaxisha wa ida ma gadibu hum yaxfiruun yàlla subhaanahu wa taala nee it li nga xamante ni nii maa ngi denc ajjana muy lu baax muy ay xéewal yoo xamante ne nii du jeex te moo gën àdduna fuuf yàlla neen maa ngi ko dencal ci gaa yi nga xamante ne nii dañuy moytu bàkkaar yu mag yi dañuy moytu bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu yi nag wax nañ ni moom mooy bàkkaar yi nga xamante ne nii yàlla def cee wàcce ay atte lu mel ni njaaloo ku ko def ñu dóor la téeméeri yar lu mel ni tuumaal nit ku ko def ñu caw la quatre lu mel ni naan sàngara ku ko def ñu caw la quatre-vingts tamit lu mel ni sàcc ku ko def ñu dagg sa loxo mbir yi nga xamante ne nii bakkaar yu mag la lu mel ni bokkaale lu mel ni njibar lu mel ni naan sàngara bàkkaar yooyu yàlla subhaanahu wa taala ne na képp ku koy moytu di ko daw bu yow yowmal qiyaamee dinaa la faye àjjana dina jox lu gën àdduna ak li ci biir walladina yajtanibuna kabaira al ismi wal fawaxisha wal fawaxisha ak gaa yi nga xam te ne dañuy moytu njaaloo gis nga yàlla dafa njëkk wax kabaira al ismi ñuy moytu bàkkaar yu mag yi te bu ngeen seetloo bu baax tuddaale naa fa njaaloo waaye gis nga yàlla daf koo tuddaat daan ni wal fawaxish njaaloo ak lépp loo xamante ne nii moo koy indi commencement ba lu mel ni wéet góor jigen di wet wala lu melni ni ñu ñuy caaxaan di fo ñom ñaar ba sir caaxaan yoya ak sir fo yoya yobbe len ñu tabbi ci njaaloo parce que doomu adama man na wet ak jigen fo ak mom ta taxagul mu am bakar ku njaaloo waye yooya yépp daf lay yobbu ci njaaloo wala di wax wax yo xamanteni ni nii daf leen di yobbu ci njaaloo ay wax yu ñaaw wala ngeen di yónnante ay photo wala ay vidéo yoo xamante ne nii daf leen di yóbbu ci njaaloo yooyu yépp moom moo waral yàlla subhaanahu wa bi mu wax ci aaya bi mu daan ni wal fawaaxisha waxul faaxisha waxul benn déedéet dani al fawaaxish jamcu bi la indi ah jamcu bi mbooloo mi indiwul indiwul euh, li nga xamante ni moom moo di singulier bi mais pluriel bi la indi ndax lan moo tax lépp loo xamante ni daf lay yóbbu ci njaaloo rek lu mel ni xool lu mel ni wax lu mel ni jokkalante yenn kàddu yooyu yépp islam daf la koo tere lépp loo xam ne daf la yóbbu ci njaaloo rek islam tere na la ko looloo waral ba ci aaya bi mu daan ni wal fawaaxish ginnaaw bi nga xamante ne nii tudd na bàkkaar yu mag yi mbokk yi ñetteel bi nga xamante ne nii yàlla subhaanahu wa wax na ko moom mooy lan wa ida ma gadibuhum yaxfiruun allahu akbar yàlla subhaanahu wa taala na bokk na ci li may dencal gaa yu baax yi na ci li may dencal gaa yi nga xam te ne incha rabbi bu ñu ñëwee dinaa leen fay lu gën àdduna ak li ci biir ñi nga xamante ne ni suñu meree dañuy baale bu ñu meree dañuy baale mbokk yi xool leen loolu yàlla subhaanahu wa taala moo ne day boo ngeen xoolee aaya yi mën nga jàpp ni lu yomb la fekk ni lu rëy la fa yàlla nga mer kon ndagate yàlla saxal na ni yow di nga mer gis nga yàlla nee ak gaa yi xamante ne bu ñu meree dañuy baale la nga ciy dégg ne kon ndekete mer moom ci doomu aadama la bokk di mer waaye nag jàpp mer nag ci doomu aadama doomu aadama dafa war di baale di jéggale di jéllale gis nga yàlla subhaanahu wa taala wax na yonent bi yonent bi sallallahu jàngal ñu ci xadiis yonent bi nee na bu yowmal qiyaamee bu jàmm yépp teewee yàlla dana yebal benn malaaka mu woote daan ni ana ñi yàlla war a dugal àjjana ana ñi yàlla war a baal ana ñi yàlla war a jéggal yonent bi nee na bu ko malaaka bi wootee benn mbooloo kase ñooy jug wuyu ji te mooy ñi daan baale ñi daan jéggale ñi nga xamante ne nii suñ leen daan tooñ ba ñu mer dañuy baale daal di jéggale ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala dina leen fay mu mel ni dañoo posé war question yàlla ni ko baxam amaat na ñeneen ñoo xamante ni di nga leen fay mu daal ni waawaaw walladina stajaabu li rabbihim gaa yi nga xamante ne nii bu ñu toogee déglu oustaz mbaa ñu toog déglu imam mbaa ñu seetaan ab video muy waaraate ñu déglu lafa fa wax ba jeex ñu daal di pare pour topp ko yàlla nee na ñooñ it bu yowmal qiyaamee dinaa leen fay àjjana walladina stajaabu li rabbihim duñ ca yende wa aqaamu salaa ñuy taxawal julli wa amruhum shura baynahum ba pare mu ñu nekk ñoo xamante ne ni dañuy waxtaan seen biir di diisoo wa amruhum shura baynahum saar wi yàlla tur wi mu ko tudde fii la ko tudde wa amruhum shura baynahum mbokk yi ndekete lu ndaw loolu yàlla dina la ci fay àjjana waaw waaw yàlla dina la ci fay àjjana lan boo nekkee sa soxna ngay waxtaan ak moom boo nekkee ak say mag ak say rakk ngeen di waxtaan soo nekkee ak say waajur ngeen di waxtaan soo nekkee ci école ba ña nga fa bokkale école ba ngeen di waxtaan di diisoo di joxante ay xalaat état bi ki jiite réew mi moo ki ministre am ñuy waxtaan di dem ensemble di fa waxtaan di nas ak a nocci ngir jëmale réew mi kanam yàlla subhanahu wa taala nee na loola buñ ca saxee te mu nekk loo xamante ne nii njariñ lu jëm ci biir ñépp la bu yemal xayaamee dinaa leen fay am àjjana wa amruhum shura baynahum bi nga xamante ne ni tamit yàlla tu tuddaan na ko ñu cay jeexale mooy wa mimma razaqnahum yunfiquun yàlla nee na bokk na ci tamit ñi may fay àjjana bu yowmal qiyaamee jox leen lu gën àdduna ak ci biir <laughs> ñu xamante ni li ñu jot a fii ci àdduna li muy tuuti tuuti ci alal dañ koo bokk nit ñi ndeysaan li ñu am fii ci àdduna li muy tuuti tuuti tuuti dañ koo bokk ak nit ñi dañuy saraxe dañuy génne azaka ku ñëw laaj leen bu ñu yoree dañ lay jox bu ñu yorul ñu wax la wax ju neex la waaja waxoon nee na ku ñëw sama kër di ma bu fi fekkee alal dinaa ko ko jox su ko fi fekkulit même buy génnee dem dina kontaan ndax dinaa ko tontu tontu lu neex in lam takun wariqun yawman ajuudu biha lissaa'iliina fa inni layyinul uudi waaw laa yaxdimu saa'iluuna alxayra min xuluqi imma nawaali wa imma xusnu marduudi allahu akbar waykat ba nee na képp ku fëgg sama kër ñëw loo fi fekk ci alal boo ko fi fekkee dinaa la ko jox soo ko fi fekkul dinaa la tontu tontu lu neex loo xamante ne nii booy dem doomeer kon mbokk yi yii ay jikko la yoo xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala wax na ko ci suuratu suuraa dinañ ci bàyyi xel ci bu yowmal qiyaamee ndax mu fayee ñu àjjana mbokk yi des na yeneen jikko yeneen melokaan yeneen màndarga yoo xamante ne nii incha allahu rabbi suñ ko mbubboo woo rek yàlla fayee ñu àjjana dinañ ci ñëwaat ak ci suñu waxtaan yi di ñëw yàlla nañu yàlla subhaanahu wa taala dafa dégg ak topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla lu fi dégg ñu xam ne ci ki doon wax la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.